doo sonn. waaw wax na sunna ndax boo xoolee fi nga toll. Mhm. doo sonal sa bopp ndax laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusahaa li nga am rek nga jënd ke nga toog. bu li nga am boo ko seetee moom nga toll. Mhm. loo indi fi di nga am xar. incha boo yoree cinquante mille nga bëgg a seeti xar cent mille. Mhm. di nga yàgg si dara rek dootoo am. waaw jërëjëf jërëjëf góor gi ñu ngi leen di zi jërëjëf gi ñu ngi leen di ziar waxtu bi moo bariwul lool waaye yow dafa am benn question boo xam ne moom la lay laaj. da ngay dem ba àll ba di jëndi xar ndax yaa ngi bàyyi xel sart yi nga xamante ne bii bu dalee xar mi dina ma tabaski wala du mat tabaski. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax di la sant ah, ñëpp ñuy dem ci àll bi dinañu vérifier xar bu ñu xam ne xar bi xar tabaski la ah, boo fekkee tam kuy jindal ah, après tabaski tam ñu ay dibiteer yi dañu bàyyi xel ci xar yi ñuy jàpp am na am na yi nga xamee ni dibiteer rek lañ koy jindaal am na nag ñi nga xamee ni bu dee rek xar tabaski dañu koy vérifier bu ñu xam ne yëfam yëpp mën na loolu mooy wëf yëfi jullit yow miy génn di dem ci àll ba di wuti xar na nga xool xar mi ngay génne ndax xaru tabaski dafa am ak xaru dibiteri am léegi nag comme xaru tabaski dafa am ah man Oustaz Cheikh Tidiane Gaye maay dem ci xar mi ma wax leen ayib yi yàq xar ak ayib yi nga xamante ne bii bu dalee xar du ma tabaski ndax yëf yi du du bànne yëf yi du bànneexu bakken yëf yi sunna la sunna sa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon góor gi nga gunge ma ñu dem ci xar male ñu xool ndax yéen ndax sikka yi yàq tabaski am na ca xarma wala amu ca bismillah puusal xar yi puusal xar yi waaw ñu ngi nii ci biir dara lu tëngeej pour kii pour wan leen yéen jullit yi xar mi nga xam ne moo mat tabaski ak sikk yi nga xamante ne bii bu amee ci xar du mat tabaski góor gi dellu ginnaaw tuuti ñu xool dellu ginnaaw taxawal ni xar mi dafa am ay béjjén te rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xar ma mu tabaskee woon ñaari xar ya gisoon nañ ne yu ami béjjén lañu kon béjjén dafa baax xar mu am béjjén dafa baax ci tabaski moo waral. am béjjén moo gën ci tabaski yow miy jënd xar xoolal sama loxo dangay ëpp bëtu xar bi gis nga xoolal fii ci àndum boo defee nii ëppal bëtu xar bi góor gi defal nii sa loxo gis nga gis nga boo defee nii sa loxo gis nga gis nga ni muy xefee xar bi daf lay gis nga xam ne xar bi patul soo paree da ngay da ngay jàpp sa loxo ci gémmiñ bi ndax xar bi gémmiñ gi xasawul lool nga xool ndax foq na wala foqul soo paree da ngay xool geen ba génn bi candum geen bi ndax mët na sulus bi bu fekkee ñetteelu geen bi dafa dagg xar mi matul tabaski xar mi bu bu bu yo bu bu bu làggee bu amee laago bu amee laago ba muy soox ba soox bi fës lool xar mi matul tabaski su fekkente ne xar mi dafa yooy lool ba ngay gis ba ngay gis faar yi xar mi matul tabaski su fekkente ne xar mi fexe nga ba xam ndax mën naa meem wala mënuta mbee boobu tamit lu ñuy seet ci xaru tabaski xar bu muumaa du mat tabaski xar bu pattee du mat tabaski xar bu béjjën bi dammee tey naaj du mat tabaski mais bu fekkee béjjën bi dafa damm mu dem ba jëmmi jamono mu wér ba nàccatul xar ma mat na tabaski kon yooyu mooy ngay noonu ngay xoolee xar ba xam ndax mët na xarum tabaski beneen xar bi nag moom mooy dafa feebar dafa feebar waaw xar bi tamit aussi nañ bàyyi xel xuuri xar bi nii am na xar yoo xam ne dañuy xuuxaan comme ni muy dalee nit feebar la kon xar mi dafa feebar boo déggee ñu ne feebar bu biir ci xar mën naa feeñ fii ci xur yi nii bu ko defee du mat tabaski mais beneen xar ba ca des mën naa feebar te du doon loo xam ne da nga koy gis ni mu doon feebar bu biir bu nekk ci moom am na xar boo xamante ne tamit dafa soox ba mu biir am xar boo xam ne boo ko xoolee yow mi sa bopp ku la ko doon jaay doo ko jënd ndax doomu aadama bi bi wut lu neex yàlla dafay wut loo xam te lu jaar yoon la te yonente bi nee na taamu nañ ci xar bi nga xam ne dafa duuf xar xar bi nopp waaw dégg nga dégg nga dégg nga eh, ngi may gàgganti <laughs> nee na nopp bi su xaree ba sës xar mi matul tabaski su noppa yi bu génn wàll gi daggee it xar mi matul tabaski gis nga xar bi bu magee lool xar moo xam ne am na juróom-ñetti at juróom-ñaari at wala juróom-benni at xar moomu matul tabaski kon lu si mën a am jullit yi nañu xool xar yi nga xam ne moom la ñuy jënd ak xar mi nga xamante ne bii moo mat tabaski moom moo mën a remplir sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam soo xoolee ci misaal ka ñu naroon a jëkk tabaski ba ñu remplacer ka xar yàlla def ne waxaday naaxu bi sibxin azim wa faddalnaahu alal alamin gis nga dam wax naaxu bi sib'in azim tabaski gu mat gu rëy yonente bi ne nag na ngeen ko màggal fexe mu doon xar mu rëy ndax ëllëg yowmal xiyaam mooy seen waruwaay bu ngeen di jàll siraat kon xar mi ci la bokk mais eh, oustaz nit ñi dañu yaakaar ne tabaski xar rek la mais yow loolu nan nga ko gisee ci Sénégal ndax kër yëpp yàqu na xar dong la ñuy tabaskee bu dul xar ñi mawuloo dugal kër Sébé ci biir Dakar mais loolu sariya waxut loolu ndax nit ñi seen am-am tolloowut te nit ñi léegi dañu topp soxna yi ak gone yi ba fa yàq seen i dëkkuwaay mais ndax am bari na fi ñoo xam ne dañ fiy jënd si béy pour tabaski wala déet. non am na wante nag bëriwul. nekkul nekkul nit ñuy dëkk fii ci Dakar de. Mm-hmm. Eh, ay suñu mbokk. yu jógee kaw yi ñu mel na séeréer yi ak pël Fuuta yi yenn saay dinañ jënd béy euh, kii ko wante nag bu dul loolu moom fii moom ci ci biir dëkk bi kuy tabaski bi béy da ngay am coow. gis nga kon tabaskee béy ci dëkk bi dafay indi coow ndax xale yi sax ñoom la ñu yarul yar bu toll ne mën nañoo téye seen gémmiñ ku sa papa indi béy tey bu subaa coow li yëpp yow lañ koy siiw ndaxam béy day ci tabaski la bokk nañu may sens béy ci tabaski. Jigen juy bañ nag bay duggu sa kër té bu sa jëkër doxé ba ñëw nga nek bi ndax indi nga dibi mu làqar ci la laxasub dibi nga mën ci arrière ci sa bànneexu ba kenn bu ko yalla yombalalé amul luddul bay rek way na ngeen comprendre bay ci tabaski la bok bay ci tabaski la bokk nak ci tabaski la bok euh, gellem ci tabaski la bok yoy yeb ci tabaski la bo amulé xar bu goor sax nga ray xar bu jigen dafa dagan So amulé xar bu jigen nga teg ci béy soo amulee béy bu góor nga am béy bu jigéen boo amulee béy bu jigéen nga am nag bu góor nag bu jigéen nag bu góor ba nag bu jigéen ba jigéenu gëléem mooy bi nga xamante ni bii moo gën a suufee ci tabaski kon mbokki jullit yi xar maa ngi noonu bu yooyee lool baaxul bu béjjén bi dammee di nàcce matul tabaski loolu naka nit ñi bàyyi xel takkante ay xar ci benn néeg ñuy mbëkkante be benn béjjén ba damm nga xëy tabaskee ka fekk mu ngay nàcc amoo tabaski ak koo mën a doon xar nag boo ko dee seet na nga seet cër yëpp ndax baax na wala mat na su ko defee loolu moo doonoon émission xar mi ñu ngi gërëm ñi nga xam ne mooy télé bi ñu jógee muy VA TV muy vision avenir mu ngi nii ci juuti bi fu waay tollu xam ne mu ngi nii ci juuti bi moo yéen a dëkk seen dëkkandoo la ñu ngi gërëm euh, directeur ba ñu ngi gërëm. Euh, Seydi Omar mi ñu fi fekk Sall ñu ngi gërëm sama góor gi ah Amadou Sall amadu Dem ak képp koo xam te ne bi fekk nañ ko ci daral bi fii nag moom maa ngi leen di yégal ne ku bëggati xar nag fi ñëw ndax ñoom ndax ñoom du tabaski rek moo leen fi bàyyi déedéet am na ñoo xam ne tabaski ba tabaski nga leen di gis si daral bi waaye ñi foofi riire ba bëccëg suba ngoon boo ne salaamualeykum ana Umar Sall wala ana Mouhamad rek ñu di ñoom disponible nañ ci lépp ñu ngi dimbali nit ñi nag ci zahiran ci baatin yal na yàlla yàggal leen sunu kanam yal na yàlla fay leen émission ñi ñi nga xam ne ñu ngi suivre émission. Euh, télévision VATV ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen jàmm zahiran wa batin wa ma zalika ala llahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullah yal nañ fekk ay déwéni déwén na ma ñëpp baal àq baal naa ñëpp àq yal nañ yàlla boole jéggal bi xurmati muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaamu aleykum wa rahmatullah